Hadj Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf doomi Sénégal ya ñu war a tiital ca Gambie ndekete yamu rek ci Saliou Niang beneen nga ca ubbil observateur waa ji Oumar Aydara la tudd mooy ñeenteelu sénégalais bi nga xam ne des ko tëj ngiru dundam ca kaso yu nekk ca Gambie moom moom ma nga toog ca couloir de la mort di xaar la boucher de Kanilai di Yaya Jammeh mu dikk jaar fa ak jaasem boole ko ci ñi ñuy rendi Yaya Jammeh li ñuy sàkku ci moom di ko ko ñaan ngir pen de mort bi muy appliqué ci condamné à mu dakkal ko Yaya Jammeh nee na du ko dakkal ci xët mu njëkk enquête yéen a kay boucher de Kanilaay di Yaya Jammeh njiitu réewu Gambie leer na fa billahi je vais les tuer noonee la ko Yaya Jammeh waxee kitaabu ko ci yàlla suñu borom ne lu toll ci ñaar fukki condamné à mort ak juróom-ñaari moom Yaya Jammeh dina leen faat libération nañu Yaya Jammeh ci ndof gu rëy la nekk jamono ji na gannaaw ñi mu njëkkoon a faat di juróom-ñeenti condamné à mort ca ñooñee Jibi Ba ak Tabara bokk ci Yaya Jammeh daf leen a boole mennam ñu naan ko fosse commune nekk foofee ca boori nekk ca Gambie fa la leen Yaya Jammeh boole ñoom ñëpp suul Walfadjri Grand Place di laaj xariti Yaya Jammeh yi ci fan la ñu nekk ba yaay jàmme di toroxal doomi Sénégal yi ca ñooñee di bàkkoone xaritu yaay jàmme lañu Thione Seck ca la bokk Fallou Dieng ca la bokk Assane Ndiaye ca la bokk Youssou Ndour ca la bokk Coumba Gawlo Seck ca la bokk Alioune Mbaye Nder ca la bokk Viviane Ndour ca la bokk Balla Gaye 2 Triple S doomi Double Less ca la bokk ñi ñi ñëpp yéenekaay bi nañu kenn dégg la ñu wax ci dara te yaay jàmme mi ngi toroxal doomi Sénégal yi Sénégal njiit la di Macky Sall Le Soleil nañu gannaaw ba mu nekkee ci pexe ngir jële fi Sénat bi ma ngay xooli pexe yu a jëlee poste vice présidence bàyyi woon Sud nañu Macky Sall yéeneem ak i jéegoom ak tànkam moo di effacer Abdoulaye Wade ba mu jeex tàkk léppi Abdoulaye Wade lu fi ne woon topp boromam gannaaw bu ñu fi jëlee Sénat bi jëlee fi vice présidence bi populaire xëy di laaj ana kan la toftal ci ginnaaw Moustapha Niass kan moo fas yéene doon ab dauphin ne njiital Sénat du fi am poste vice président du fi am kon kan moo nar a topp ci ginnaaw Moustapha Niass Macky Sall ña ko nar toppee mbooro fond ko muy magistrat loolee ak nam ca doxalee la magistrat yi ne duñu ko dégg tey duñu ko dégg ëllëg ku ko déggul tey it da nga ko dégg ëllëg ba ginnaaw ëllëg mu di groupe Futur Média bi am fukki at fëkk leen kayeb 32 pages ñu ànd ak observateur xool fukki ati groupe Futur Média yi ba ñu dooree ba suñ jonne yàlla tey borom Futur Média di Youssou Ndour moo fa xëy di leeral yépp dooree ko ci turu Futur Média Youssou Ndour ne tur wi mi ngi jógee ci benn waay bu naan El Hadji mu ne El Hadji Alassane Samba Diop moo créé tur boobee mu ne ku ñu naan Ibrahima Ndoye moo joxe tur wi yi Youssou Ndour ca la muy leeral ci observateur jëm ci groupe Futur Média yamul foofee ndax wax na fa lu mu musta wax nee na tey ji fi siège groupe Futur Média nekk histoire ko indi ndax Serigne Mourtada Mbacke radiyallahu taala moo ñëwoon Medina doon seet si papam El Hadji Iliman ba mu jugee bay dem ca nday soxna mbuub di yaay Youssou Ndour dabee Serigne bi ne ko nañu ñaanal boole ceekit wax ci xale ndax fa ñu nekk coow bari na fa lool ajaratu nday soxna mbuub ba mu waxee loolee Serigne Mourtada la ko Serigne ba laaj moo di ndax foofee ab rajo dafa am fa tey ji fa la rajo Futur Média nekk observateur yi ki jaar-jaaram fa mu doore ba fi mu yegg si tey ji loolee lépp mi ngi ci yéenekaay bi may sa Sarr di kenn ci waa observateur yi di fa leer ne ba ñuy soog a door jaaykatu journaux yi sax kenn ci ñoom bëggul woon a jaay journal bii di observateur tey yéenekaay boobu di observateur bés bu yàlla sàkk danañu génnee quatre-vingt-quinze mille exemplaires te sax du doy